ndax koor gi ni ngeen koy doxalee moo bàkkaare moo bon moo salte ay koor bu dara di sut Youssou Ndour mi yàlla dénk teleem lam leen tegal mooy ay théâtre ay koor jot na ay dokkoor ay di fooyee koor lii leen leen bu buñ fa jógee ñu tegal leen benn Gana Messere rek concours man dafa mel ni ñoom daal balaa ñoo mën a def seen bàkkaar yu bon yi rek balaa ñoo mën a yàllaal Serigne Touba rek wala ku ci nekk toog xëcc sa tariixa di yàllaal rek koor jot ba grand yi jot ci ngoon ak koor ga ñu wara wax la ilaha illa subhanallah ñuy wota ci ay bokalé ki fen sama gaay ñu leen abonné fi inshallah dinañ xol oustaz bu ñu neex na ci fi makoy tek amna oustaz yu may deg ñu neex ma kep kuy wax qala la qala su dana la tek ta nak lamay tek moy waxu yàlla ak waxu yerente ba dong bu ma ci intéressé mi du jëm ben oustaz li sunu télé la lu neex lañ fi tek fi page bi luñ fi duggal ci diingat ci wet ci contact man la man la engagé ta neex na may même luma yëgut léeg-léeg sax ñu duggal sax luma yëgut fi ci laa ànd dama ci takk nit yal na yàlla def askan wi gindiku yal na yàlla def ba sëriñ si nekk fii di fenn man Médou Diop Watawasaw Bil Haqqi ak képp ku am gëm gi gëm-gëm gi ma gëm ndax lii wallaahi yàlla laay seedeel wa rabbil kaaba yàlla moom ma ko jaral billahi lazi la ilaha illa yàlla moo tax may wax bu kaale gi moom métti fen moo yàgg sëriñ si danoo mën fen muy sëriñu murit bi sëriñu tiijaan bi sëriñu xaadir bi dañuy toog di fenal yàlla rek ay toog ay yàlla laak ay bàmmeel boo tuddee sëñ tubaa sëñ tubaa jóg ak ay yom xeeb loolu ay fen la du dëgg c'est kon ñun kon li ñuy xeex yàlla la ñuy xeex te dëgg bi la ñuy wax di jaar ci digg bi ndax seen dëkk bi dëkk naa feex ay masla yooyu fii moom amul ñun dafa ay dafa deretal lu xonk dañ leen naan lii dafa xonk lii dafa kii day fen kii li muy wax nii day fen Serigne Touba bi ñuy jiñ yàlla ay feni kase la ni ngeen di toogee naan kenn Serigne Touba noonu lañu toogee di màbb seen seen seen seen kii bi wallaahi Qatar Pala jamono Ibrahima xepp seen miñ moo amoon mais léegi Qatar Pala moo xew Qatar Pala la ñuy ñëw fekk seen xërëm yooyu di ko moxoñe di ko di ko di ko ramassé wallaahi seen cere ji da leen ci xëpp suuf mbàkke doo leen yàlla da ngeen di duul lu dëgg war barke alxuraan doo leen benn yàlla da ngeen di lekk di sëy di amee doom bëgg jigéen tekki nag ndax ay ay soxna yu ëpp yeen fi ëpp lay soxna ci dëkk bi tappale rek ku gis lu la nga gis la la ngeen fi mu ñëwé di mel koy wota ci Sénégal tak sa micro tak ki kan la yam ku wan borom Touba say say nga ginnaw borom touba say say legi lan moy yalla dañu yoni ci borom touba le kon kon man exemple jiñ na ma saay taman defuma ko dara kan ngeen yab jinn ko sama papa jinn ko kenen ndax nekul ñepp gëm borom touba ku won borom touba ginnaw say say mais ci lan ana lan moy wan borom touba kanam borom touba di diine borom touba lamu jangale ci alquran ak sunna yalla neena yeen sa sam neen loolu ndigalu yàllaa ko ñun ñepp ak borom touba ñun ñi and jifeeku doon ay jaamuk yàlla roy muhammad salaa salaam tasaare ak njub ci suuf si li nga jàngee ci sëñ Tuubaa ci lu jub ci alquran ak sunna nga jottali ko nit ñi te waxu yàlla waxu yenn saa ñu ànd jëfee ko jeex na mais lan la ni wan wan ku wan borom Tuubaa ginnaaw saa lan mooy wan borom Tuubaa ginnaaw mooy da nga war a topp ci njabootam di leen bayal. di lapar lapari jébbalu li yàlla moom nga jox ko Muntaxa wala nga jox ko Fàllu Mbàkke wala nga jox ko Basiiru wala nga jox ko keneen naan kii yàlla rek kii moo yor jaam yeeg si mbindee fi loolu moom bu fekkee loolu ak kufru la ak bokkaale la ak fen la ak yàpp askan wi teg ak seen histoire yi primé yi histoire yu du jeex sëñ bi géej la koo leen yàpp lan mooy wan borom Tuubaa ki ki kii ginnaaw ah lan lan tuddee wan déglu leen ko ni ko waxee leer na ku gis lu dul moom la nga gis jaay jaay la taxaw publiquement nii wax ko wane kanamam bu kenn te tey kii bi di reetaan ko kii maanaam na ñëpp wuy si Bàmba maanaam weddi ñeneen foo dem tamit feneen fa ne la wuy sul kële ñan lan yàpp waaw fii nii mu wax fi saaga ñëpp képp koo xam ne àndoon ak sëñ Tuubaa xaj mo la gën dal xaj ci dëkk publiquement am nga ay chrétien ami tidian ami xaadar ami layen ami ñaseen waxee ma pour ay aj tijaan wala pour mu leer tamit wala xaadar wala mais ci côté xéetu yabaata ci côté ku ci nekk rek bo ñëwee walu boddi ko tégal bo tégué sëñ bamba légui tidian ba du dara murit ba du dara ibadu ba du dara chrétien ba du dara ñew tek te liru tek lip ci ay fene kasse kasse kasse ba bay bay jinn nit ñi xaj lu leen waxam bi ndax li respect la ki ngeen waron nok yoonu murid bu doon da ngeen di wax am ngeen combat ci ñu mel ci wax yi ñuy wax ba pare di wax wax yo xam duñ koy sétantal xëy na duñ ci baye xel mais saga nan sam papa saga nan serigne jamm saga nan donte man goma ci ben serigne nak pour mu leer du ben mawdo bu ma gëm du ben waxe ma te gëm mawdo wala te gëm baye wala te lenn mais pour wax ni même sax ñeneen tarixa yi sax da ngay dal ñeneen lii du ak maamute li ak tooñ la lii ak réewante la kii ku réew la kii ku war a noq la ba pare ne day wax ci diina kan ngeen yëpp gis lu dul la nga jay jay la yaa ahlan naar daw si leen lii wuur la te ñeena mooy si la ku may ku may kañay way na ci tëj koy daw fa nga taxaw jugoo fa yaa nga fa taxaw koo gis mu du mooyu borom Tuuba yi yëgal ne xaj yéeg a gënu taxawaay borom Tuuba borom Tuuba yi borom mi di xam leen ne yàlla ñuy nit nit lu yéen xalam yéen te yàlla may yàlla te doon ko waaw Sëriñ Tuubaa yàlla la daal day nit nit lu daal mais yàlla la lii woote kufur woote bokkaale yàlla borom bi subhaanahu la taala ku ko weddi ñu fàqu yëpp. te xam ngeen da ngeen ñuy nax du yàlla du dëgg xam nañ ko ci waaye bañ ko xamee ba na ni lii ak yàlla kenn la yàlla moo moom yàlla moo kii ba pare ngeen déglu ko ñu puus yàlla xam na ko ba dafa weddi lii ngeen bëgg a toog kufru gu mel nii am ci yoon bi nekk fi ngeen war a lijjanti pour jaam ni pour seen ëllëg mais seen intérêt bopp rek bas bu génnee intérêt boppam ne dañoo laal ci du njàngale sëñ Tuubaa ga njàngale sëñ Tuubaa mooy lu koy yàqal boo xoolee ba xool ba seetantalaat mooy loo xam day yàq moom dara jaam moom day tax ko mayal tool day bu yàggee mook ñëpp a yem kan ngeen hmm. xam nañu loolu gëm ko xam la ilaha illallah te baal ku ko sax wax yaay suñu borom man loolu jéggi naa ko. xam leen ne mooy biiru borom mbindeef yi gën naa ne mooy bi sàkk moo leen ko fa yi mooy awalam mooy aaxiram mooy zaahir mooy baatinu baatinu mooy taahir lu mën a xew buñ ko bokkaale kenn ku yur soo wax wéetam gi doonul kenn koo mën di doon te waxuloo ci wéet gi gëmunu say wax jàpp loo ci laaj gi ku war te jàpp loo ci laaj day daanu ku moy suul xel boobu nga dee ko séenoo borom Tuuba mooy yàlla nii ñuy jaamu yaa rabbana yaa hayyu yaa qayyum ku nangu woon moomam ji moo nangu wallahi ndax lii du waxi kufru bu rëy rëy sëñ Tuubaa mooy yàlla bi ni jaamu yaa xayu yaa xayum mooy yàlla googu mooy sëriñ Tuubaa taxaw wax ko fii ci yoonu murit est-ce que yoonu murit am ngeen combat bu ëpp bu fekkee lislaam moo leen tax a jóg bu fekkee wekk yàlla weg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen tax a jóg bu fekkee weg ngeen yàlla bëgg ngeen yàlla bëgg ngeen sallam bu dee dëgg la ci yéen est-ce que am ngeen Bass Abdou Khadre am nga combat bu gën a rëy combat bi combat boo xam chaque jour mooy puus yàlla sëriñ bi bu amee yàlla bu amee lii na ko gërëmee sëñ Tuubaa yeneen bu amee lii na ko gërëmee sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo gën yàlla moo bind yàlla moo dimbali yàlla ndax bu fekkete am ngeen lu ëpp solo loo leen woote ci lislaam lu gën muy màggal yàlla muy kennal yàlla muy xul wallaahu ahad ñu bàyyi ci xel muy baatu laa ilaha illallah muy baatu muhammad rasulullah ngeen màggal ko waaye mooy yàlla weddi yàlla suufeel yàlla yooyu rek ngeen mën a dégg te doo leen dégg mukk ba sëñ bas génn wax ci wala muntaxaa génn wax ci wala kenn ci yoon génn wax di jooy ci wax ju ñaaw waxtu salte gi ñuy wax ci lislaam ak li nga xam ku ko gëm-gëm kufru gëm bokkaale yàlla ku ci dee wal yoosi bi laa mi ngi dee ci ak réer mi ngi dee ci ak cànkute mi ngi dee ci ak weddi yàlla ndax kii moo weddi yàlla moo ko weddil boppam paa maa ko tag fi xamul yàlla xamul yeneen tam la wax ji jéem ko xam sax bàmba la ñam lim kii ci bàmba bàmba la mos laa xawla wala quwwata nit ñëw bëgg a aj sëriñ bëgg a màggal sëriñ Touba màggal seen maam ba kaweel ko yàllaa ko yeneen tam xool leen bi ne xeetu naxaate mbàkk ngeen war a toog war ko leeral xam leen ni ak cànkute la fi ngeen teg sëñ Touba ku baax la woon jaamu ko te yàlla loon yàlla na ko yàlla yërëm na mais li ngeen koy jiiñ yàlla ak fi ko teg nii du dëgg du yàlla ak bokkaale la mbàkke da ngeen am xeex bu gën lu lu lin liñ teg liñ teg ci seen kaw maam wala seen maam ko wote woon moo wote woon ne yàlla la leen di laaj bu ko woote woon moom nañ ko weddi moom xam ne du yàlla ndax yàlla kenn la gisuma yàlla yónni nag moom laa gis sewal sa féete day laxal sa pas di dut di bakk bamba di tagg bamba day tax a ñàkk bàkkaar bëgg moo gën dëkke def listixfaar bëgg sëñ Tuubaa moo gën dëkke def listixfaar muy di wax astaghfirullah sëñ Tuubaa doon jaam yàlla ngeen doon jaam yàlla yàlla suñu borom digal ñu wama umiru illa li yahbudullaha muxlisina lahu diin hunafa wa yuqimu salaat wa yutu zakat wa zalika diinul qayyim yàlla digal ñu ne digalu ma ne ludul ngeen jaam yàlla ngeen seedal jaam nga yàlla tax bu leen ko seedeel sëriñ Tuubaa bu leen ko seedeel kenn muxlisina lahu diin ba pare mu doon lu ñeel lislaam lu la yàlla digal hunafa wa yuqimu salaat ngeen taxaw a julli wa yutu zakat ngeen joxe azaka zalika diinu xayba lii mooy diinu kii boobu ba léegi dégguma sëriñ Bass génn mukk di soññ ak ñu mel ni moom di soññ taalibe ci zakat waaye addiya dañ ciy soññe mooy addiya gi nga xam ne kenn xamul foo leen ko teg te zakat doon loo xam ne yàlla dafa santaane pour jullit bi joxe ay ay ay zakat amul benn sëriñ ci Sénégal buy toog di soññaate ci zakat ragal leen yàlla ci azaka yi ngeen koy jox miskin yi ko yayoo waaye zakat yi ngeen soppi ko ay addiya boo leen demee ba génn rek xaalis ngeen di heure boo leen génnee seen intérêt bopp adieu mais mosuma dégg sëriñ Bas wala Muntaxa wala ko mel ni moom wala sëriñu ñaseen ba wala ko mënta doon ñu toog bu ko di woo nit ñi ci ragal yàlla ci barkeelal ala yàlla ko muy azaka ngeen koy génne ak nan leen koy génnee ak nit ki kan moo ko war a génn mais adiyee mboq adiyee dugub adiyee xaalis moo leen di tax a génn heure boo leen génne rek seen intérêt bopp meedu yàlla meedu luy jariñ nit tamit ndax azaka ya mooy mooy li leen di jariñ ci bàmmeel mais li ngeen jox addiya gi ngeen joxe tous la leen jariñu dara seen bopp lan nga jox leen yéeg ci ginnaaw. xooluma xool mooy yàlla dara yàlla li ngeen déggandoo ko bamba lañ xool subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji lii kufru la mbokk sénégalais si dimbali leen seen taalibe yi ngeen wax leen dëgg dimbali leen ngeen xamal leen ni sëñ bamba mii du yàlla mag ñi du yàlla du dëgg ay fen la mais lii tànku teg ku ci dee fan la jëm gisul dara yàlla xam nga di kii dafa dox ba duppóor dara yàlla gisu ko bàmba la gis dara yàlla dara dara ko bàmba la gis faalewut yàlla faalewut yàlla te sëriñ bi te waxoon na ko tamit yàlla xalif bi waxoon na ko ne pour tax yomal xiyaam yàlla taxaw yent taxaw wane na carrément ñàkk faalem yàlla mu dem ca mu dem ca maamam bàyyi yàlla ak yonentam moo tax ñi it naar bu ndaw bi lu mu kii rek ci ma ko déggee ca naaru ma bàmba man fool ku wax ji rëy ci yow demal nga tuubi sa xolawoo bi nga ci sunu bi ña doon liggéeyoon ñëpp ñëppoon ci daam te di ay ndigalam ku ko gëmul du fi saxe ku mooy ci Bàmba mag mag gëléem am ni sa ku ko moyul ma too demal nga xalaat wa ko ko gemul mato nga dem nga xarafi legi dal ku gemut comme sen waxi kasaw kasaw yi bamba yalla lak lol dal na dem xarafi kon kep ku am tawhid rek kon bolé nga ko ci xas gi saaga lii lan mo gëna a ñaaw ci ay wax mbokk sénégalais ñu waxante deug sëriñ touba égout fi mbokk talibé yi war rabbil kaaba dal leeni sank dal leeni sank li ni wax yépp wax yëmbët mais ñi fi nu tek touba du deug égufa bi du yalla yàlla kenn war ko utal morom bay jël sëñ Tuubaa di ko dend ak yàlla naan ay mooy tawat mooy gàncax ak moo ñu dundal ak c'est faux du dëgg te boo xoolee cim xel wala ci luñ fekk du dëgg xel nangoo ko kañ ngeen utiliser seen xel yi yàlla borom sax nee na borom xel yi lay waxal. Sëriñ Tuubaa bu fekkente ni ci mooy yàlla bi ngeen wax ay mooy taw mooy naaj comme kii waxi dofam yi muy wax nii benn xel fekkewu ko kañ ngeen utiliser seen xel yi Sëriñ Tuubaa ba muy ñëw fii la fekk ñaam bi. fii la fekk meew fii la fekk ananas fii la fekk pomme fii la fekk ginaar fii la fekk ñay fii la fekk nag fii la fekk bépp xéewal bu ñuy lekk fii la fekk asamaan ak suuf créé ko bindu ko fii la fekk ndox fii la fekk muy taw fii la fekk muy naaj sëñ bi dara la ëndaaliwut mu ñëw fekk ko fi amul lenn lu mu mës a jàppale yàlla ci jamonoy maam Aadama ba léegi mu ñëw yàlla jàppale si Tuubaa mu jaar ci biiru soxna jaar mu fay lekk li fa dund ba nim ñëwee ci àdduna yàlla ki ko ba nim deewee mu faat ñu rob ko ba ne la mi ngi ne kan ngeen yàpp léegi boo leen ñëwee taxaw naan mooy yàlla mooy taw xam ngeen ni loolu wax xel fekkewu ko loolu xel fekkewu ko moo ñu goreel ci mu jaam gi yépp yi may wax xel fekkewu ko buumu jaam ba tey dogut ban buumu jaam moo dog ci lu mu fekk mbokk sénégalais utiliser leen seen xel te nekk nit wallaahi te xam ne seen sëriñ si dañ leen fooy wallaahi dañuy fen rek Tuubaa ci moom la xol yi di jege ku ko yëgul gone la buy dawal ndege borom ci moom la mbir yi di gëne ku mu baaxul lu baax la ko tane borom Tuubaa di tudd tuwa màgg na mooy dëgg tudd yàlla bul ma àgg na ku bëgg xel deel sikar turam bi sikaram kasiran day xalal merow di ko sikar fi sikkiri wa tafat kuri ku ko saxoo war naa ne dootu la sori wali yu kami moo ma dee turam bi ma di ko si lemba jëloon meew bi. gis naa ci moom nga dégg wax nga wax ko mu wax moom moom it lan ma wax nii ko. waaye du tee mën naa ko nangu naa la borom Tuubaa yaakaar bi bëgg naa la. xam nga ne man xam nga ne man doyu joxee ci laa sax borom Tuubaa xam nga ne man doyu joxee ci laa sax saa xol du jooy saa bët du tooy lépp li ko metti wax dëgg yàlla moom moo ko teg boppam ndax na ngay gisee rabu samaawaati wal ard suñu boroom ki nga xam ne moo la bind sa papa sa yaay bind bii ni nga nekk dafa laaf àpp mu doon sa bisu dee nga xam ne danga wala nga au moins war nga xam ne dangay demaat même si am na ñoo xam ne ñu ngi dund mais ñoom fàtte na sax nañ ne ñoom dañuy dee yow kooku nga sañ a def li nga xam ne moom la gën a bañ te ku la jóg di la si gaaganti nga mer nga saaga ko ndey ngay lu nekk nga def ko di ko tëkku lu la neex def topp sa bakkan rek wax dëgg yàlla ma ne ko wax ji nii day firndeel rek pas-pas bi nga xam ne moo nekk si yoon wi ñuy tuddee yoonu ndax lii nii li ki ko njëkk wax mooy seen xalif bi mu taxa mbàkke moom moo njëkkoon wax ne bu yàlla taxaw yonente bi taxaw bu romb yàlla romb yonente bi dem si sëriñ tuuba feneen mu wax ne bu demoon yow ma xiyaam mu am ngërëmu yàlla am ngërëmu yonente bi te amul ngërëmu sëriñ tuuba dara du ko si saaf waxul directement nekk ñoom seen sëriñ bi mooy mooy seen yàlla ñoom waxu ko directement de mais daf koy cax daf kay daf koy lëndal daf koy daf koy koy bind waxee après yow nag taalibe bi ñoom ñoo koy sous-entendre noonu kon luy loolu ni nga xam ne seen xalif bi moo ko njëkk wax loolu day firndeel ne nekk wax boobu noonu engagé na képp koo xam ne dafa tënk si moom ndax moom moo ko njëkk wax te xamna wax deug yalla ku nek ci yoon bi mom xale bi moy sa moy sa moy sa njit lu mu wax non lolu mu waxul du nonu wala motax kep kuy murit wax deug yalla nga nek di déglu video bi ni ma ngi lay soñu di soñu sa bop ñu ci yoon bi ni ñu kenn ci ñu ci man ndax premièrement bo démé alxuraan début ba fin nga dem ci li yonente bi jangale littérature islamique bi yëpp yi nga xam ne yu baax yi nga siy fekk lu ni amul fenn gis kon loolu rek war na teyal sa xel ndax lii nii ci islam lu bokk bu ñu teyee rek te xalaat loo xam ne dem nga ci alxuraan gisoo ko dem nga si gaa yu baax yi mënoo ko gis wax dëgg yàlla sa xel war a mën a tey ndax lii nii ci islam lu bokk question bu légitime la. waaw mbokk sénégalais lii de yéen a ko déggandoo mooy comme yi nga xamante ni si mooy sunu wax yi wax yi bon yi nga xamante ni si bis bu nekk rek ñu ngi koy dégg te li ma ci gën a metti nag mooy li garaaw nag mooy fi mu toll nii mooy. mooy genre wax yi daal kenn waru ko euh, kenn waru ko weddi daal waaw nit mën na toog wax lu ko neex ci yàlla wax lu ko neex ci Muhammad sallallahu wa sallam xam nga mooy loolu